doo naan lu dul daani malaayika li nga defoon lépp lañuy seet bu ñu lee bindal fi nga jaaroon koro ba nga juddoo ba bi nga duggee fii nga ne aw ma xalima ñu ne la sa baaraam bii mooy sa xalima aw ma daa ñu ne sa gémmiñ gi sa tafis yi mooy sa xalima nga ne aw ma këyit bu ma bind ñëw sa càngaay bi mooy sa sa sa këyit nga bind keroog bi nga ne bi nga juddoo daanu suuf ne bee nga bind la tàmbalee foofa ba keroog bi sa roo gi génnee lépp da ko bind dee day bett guy ñëw de te bari na bu mu ne képp képp nit fekk mu ngi amoon ay soxla yoo xam ne moo doxoon digganteem ak njub moo doxoon digganteem ak def li mu war a def kon nit ki bëgg a mucc war nay dellu si loolu ci xelam war na di toog ci jataay yi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla di fàttaliku ëllëg ndax loolu day daggi xol day xëcc xol di ko setal bari na bu bu nit toogee si jataay boo xam ne waxtu mu fay jóg suñu borom dana farat bàkkaar bu mu amoon lépp xolam lëndëm yi ca newaan yépp dana leer la ca takkoon lépp dana set la mu tàyyeeloon lépp ci jëm ci yàlla dana dañ ak cawarte aku bëggeel aku nam yàlla wuutu ko fa rafet na muy yër téere waara téere waaraate yi ak di déglu way waaraate yi nga xam ne li ñuy wax dëgg la ci ñoom ndax ak waar bu jógee ci xol ci xol lay dugg waaye bu fekkee ne ci lamiñu nit ki rek ci ay tuñam la génne ci nopp rek lay yem kon di seet béréb yi yiw yi maanaam béréb yi nga xam ne nit dana ca jëme jële fàttaliku yàlla fàttaliku ëllëg fàttaliku itam sabab yi nga xam ne mooy waral texe fa koy jële bu ko defee loolu ci lay jële texe gi nga xam ne ak texe di dootu amati mukk gannaawam jublu gi muy jublu ci yàlla wan lépp leneen gannaaw ci loolu la koy mën a jëlee sëñ Tuba nee na law kunta tuuqinu maa yaati amaamaka min hawlin wa min sakaraatin kulla iqaabi kon la ma staxalta bi dunyan la baqa alaha bi jamikal maala min xaasin wa min daani nee na su fekkonte ne li ñëw ci sa kanam wóolu nga ko gépp wóolu ci ay tiit ak ci sukuraat yi ndee boo ko wóolu woon gépp wóolu kon doo soxla woo adduna ji nga xam ne du des nit da nga fiy jóge te adduna ci boppam day jeex te du yàgg ngay dajale alal rek jële ko fa gën a ak fa gën a jege نانا لا تغترز بحطام انت تتركه للوارثين كاخوان واخدان بل وار موك سي علال جيغا خامني دانكوي بايك سي دونو رك ان الذي يمسك الاموال محتكرا لم ينتظر غير تخسير وحرمان كيب كو خامني داي داجالي علال ديكو باني خوف دي سي بك ديكو فاتليكو رك ديكو خول دي ووت نامو يوكو نانا دو خارول دارا دارا دارا لودول يالا خاج كو رك سي بن مو ري كو ولا مبال مصيبه دوجي